waa cité kër góor gi ñoom seen wàllu bopp nekk ñu ci jàmm ndax saa yi ñu xëyee daal di gis vraiment li nga xam ne mooy dispositif bi daf leen di daal di tiital donc ni mu noonu donc gis ngeen euh, journaliste yi nii ñu ngi jël certains responsables du parti euh, kooku c'était l'honorable Cheikh Aliou Bey moo doon wax noonu donc ñu ngi noonu. voilà euh, dégg ngeen na déclaration bi nga xam ne moom la Cheikh Aliou daan def. doon ngeen seen ko noonu c'est le maire de Diamaguène Sicap Mbao à savoir Cheikh Aliou Beye l'honorable député. Cheikh, il faut conclure. Cheikh il faut conclure. Ah, dégg ngeen déclaration bi nga xam ne moom la Cheikh def donc euh, ñu jéem a xool euh, lan mooy nekk. donc yëf yaa ngi noonu comme ni ma leen ko waxee sànq waaw Khadija Mahécor mi ngi noonu depuis ce matin elle est là aussi comme ñëpp ah, dañ leen refuser l'accès honorable Cheikh Aliou Bey ngi foofu aussi. dañu jéem a xool ndax dinañ mën a am madame Khadija Mahécor Diouf amee amee donc genre cortis moom la ñu am nii. mooy devoir am. ñu cadré quoi mënoo ñëw fekk ñu ngi dugg si. tey nag lii ce n'est plus un combat parce que c'est un combat politique. ce n'est plus un combat. bu leen ñëw seen kanam ñu ngi lay on a la dignité de Touham. Tous les Sénégalais sont interpellés. Képp ku nga xam ne Sénégalais lii di am doon injustice la. Jékki de da nga xam ne suñ ko bàyyee mu jàll dina ràmb tey journaliste yi tëj avocat yi dàq justice bi instrumentalisée législation xamatuñu si yan dëkk lañu nekk donc ñu ngi wax tous les sénégalais ñu xam ne l'histoire est en train de s'écrire et que ku ci nekk si biir tu as une responsabilité ba fi ne ba donc euh, c'était la réaction euh, de madame le maire Khadija Mahécor Diouf comme niñ leen ko waxee depuis ce matin moom mi ngi fii di wër di xool nu mu def ba am accès euh, boobu ba léegi ñoom ñëpp mënuñu mënuñu mënuñoo dugg donc euh, voici la situation actuellement. may leen ko Khadija pardon ah pardon pardon mais pardon mais maire bi nga nekk am na ñu ngi nekk noonu géej waaye madame la moom yëpp lay kàtt mais li ñu am Arrêtez une fois. Khadija ngi nii Khadija di maire suñu maire maire golf Khadija mi ngi nii donc téléspectateurs yi en live en direct sur GPM sur Guédiawaye TV donc mi ngi noonu Khadija bi ñuy génn voilà ginnaaw bi wax ba pare moom Khadija mi ngi noonu di dem Euh, donc mi ngi noonu euh, nous sommes toujours à la SICAP euh, Kër Gorgui donc euh, situation bi mi ngi noonu on a eu des réactions de certains cadres du parti de député de maires de militants ñu jël suñu yaay ji moom it mu wax moom Magui Pastef la wax ci bi nga xam ne tey moo dëkk bi ngeen ko moom xam nga bu juge mhm. mhm. mhm. bàyyi fi avocat Mambay Niang bi nga xam ne moom it tubaab la bu jóge fee ñëw Mhm. a a tontu. Mhm. ci les léegi lan lañ mën lan nga mën a teg suñu loxo comme en tant que ay responsable patriote ñun xam presse bi xamaguñu euh, nu affaire yi di demee. xamuñu bëgg xam ko xam. waaw mais loo ñu mën a wax ci si Ousmane moom dina dem wuy ji incha allah. loolu moom

ñoom duñu bàyyi benn yoon euh, président Ousmane Sonko muy weet lépp loo xam ne rek euh, laaj na ko ci taxawaay danañ ko taxaw seen mbokk seen frère euh, seen doom seen xarit muy le président Ousmane Sonko di citoyen sénégalais à part entière donc situation bi nii la demee donc gis nga ñu ngi woon ci booru rond bi mais gis ngeen ni léegi nii mi ngi noonu euh, sànq maa ngi ne woon ñu ngi ci booru rond bi et que yi ñu ngi ci beneen wàll bi léegi nag policiers yi avancé nañ ci rond bi xam naa dañ ñoo bëgg dàqati ñoom dafa mel ni journaliste yi bëgguñu ñu def seen liggéey waaye bu soobee yàlla danañ def suñu liggéey na mu waree ndax euh, ñoom takk der yi seen wàllu bopp bu ñu amee lu leen naqari sax ñun waa presse bi ñun ñoo leen koy jàllaleel euh, donc ñoom ñoo ngi nii seen benn oto ñëw na carrément suñu kanam mi ngi nii oto bi nekk fi yoon sànq donc ñoom avancé nañ seen dispositif ba def face à face ak ñun amatul benn diggante bu dox suñu diggante amatul lenn lu doxati suñu diggante ak ñoom donc noonu la demee